ak yii di continuer kenn du ngeen fi comprendre waaw Sonko moom eh, wax dëgg yàlla ku ne méttiwu la eh, bëggoo Sénégal parce que Ousmane Sonko c' est quand même un patriote man personnellement sama rakk la ñoo bokk coalition ñun lu nekk daj nañ ko pour que Ousmane Sonko ba na bokk ci élection yi tey jii li nga xam ne moo ko dab mais jaaduwul parce que quand même eh, Ousmane Sonko dafa war bokk ci élection yi le tribunal régional de Ziguinchor hmm. dafa delloo Ousmane Sonko ci liste électorale tribunal moo gën a fort direction des élections kon direction des élections dañu war a jox Ousmane Sonko fiche de parrainage am joxuñu ko Sénat bi wàññi seen loxo ne ni nga ko jox fiche de parrainage ñoom it ñu bañ kon donc ça veut dire quoi état bi muy continuer toujours comme ni ko defee 2019 di sélectionner ay candidats. Hmm. xam nga boo fàttali ko 2019. candidats yi bëri woon na. mais dañuy choisir ne cinq candidats dañu am ñu am cinq candidats. ren jii aussi opposition bi di xeex élection inclusive maanaam élection bi képp koo xam ne ñun da war a war a bokk. te Ousmane Sonko dafa war a bokk ci élection yi. Mm. amul dara lu war a tax du bokk ci élection yi. te bu neexee yàlla dañ koy jox fiche de parrainage am ñu bëgg ko dañ ko jox ñu bañ ko ko dañ koy jox. parce que loolu mooy yoon bi dañuy wax nii rek mu yewuñ le mayo dafa am na seen biir ñoo xamante ne xëy na loola leen arrange comme Cheikh Oumar Talla yàgg naa dégg muy wax loolu mais am na ñoo xamante ne bu ñu sañoon situation Ousmane Sonko nii lay continuer du rek nguur gi moo ci am intérêt mais ci opposition bi également. xam nga loolu aussi euh, bon xam nga man ku nekk nag mën nga gisal lu nekk mais je pense que Ousmane Sonko ci boppam du wax loolu. Hmm. parce que moom mii ay yibili xam na ne ñun ñëpp lu nekk def nañ ko. lu dul rey suñu bopp daal def nañ ko. Hmm. parce que tous les jours tous les jours ñu gis ko ñàkk gis dañuy xeex pour que Ousmane Sonko bokk ci élection yi. Hmm. def nañ marche. rey nañ ay nit interdit nañ suñu ay lu nekk def nañ ko. lan lan lañ mënul nag mooy xeex ak force de l'ordre mais sinon amul lu ñu deful pour que Ousmane Sonko non seulement bañ a dugg prison mais également bu génn prison. bokk ci élection yi. amul dara dara dara dara dara lu war a mën a def bi def ko te parce que Ousmane Sonko dafa war a bokk ci yi ensuite ñuy wax naan euh, Ousmane Sonko bu bokkee ci élection yi euh, day gagné élection yi day gagné diw day gagné diw kon yaakaaruñ mais élection dëkk boo mën dem ci àdduna noonu la mës a demee Ousmane Sonko kenn mënul weddi ne tey jii hmm. dooleem ci réew mi hmm. kenn mënul weddi aussi mën a dem élection gagné ko waaye kenn mënul wax ne aussi bu demee élection da koy gagné parce que loolu Sénégalais ñu fal ko bu nekk président. Hmm. mais ku jegi ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ak Sonko. li ñu gën a bëgg mooy jëlee fi li fi nekk. Hmm. li fi nekk jële ko fi moo ñu gën a comme mën di nekk ci ku jegi boo nekkee président ñun moo ñu gënal mën na nekk Ousmane Sonko mën na nekk Malick Gakou mën na nekk keneen. donc amuñu benn intérêt di wax ne Ousmane Sonko warul nekk président. te bu Ousmane Sonko nekk président ñi fi nekk ko continué nekk président yàlla yàlla musal ci loolu. Hmm. loolu xeex donc amuñu benn intérêt ñun ci kuje gi pour naan

di indiwaat continuité boo xam ne nii mooy musiba Sénégal. Mm. musiba Sénégal mooy immigration clandestine mooy dund gu cher mooy PSE bu lajj mooy jaaxle mooy tumranke mooy service di bi nga xam ne nii Macky Sall ak ay ñooñam dugal nañ ko Sénégal bëgguñoo jënd foo xam ne nii Sénégal yi bëgguñu ko. loolu lañuy xeex loolu nag mënoo ko xeex di xàjj ak seen ci opposition bi. Mm. tey ji opposition bi ñëpp dañu ñaan yàlla Ousmane Sonko bokk ci élection yi. mais bu gagné Sénégal yi jox ko pouvoir bi mais sant yàlla. parce que quand am na droit. bokk ci élection gagné na du man maay tànn président sénégalais ñooy tànn président waaye nag dañu war a fexe ba ñëpp bokk ci élection yi te ku jóge nag amul kenn ku yéenewul Ousmane Sonko nekk président d'accord comme aussi niñ ko mën a maa ni gaa ko nekk président donc loolu pour man ay waxu interprétation la ah. mais interprétation yoo xam ne mën naa ko accepté mais li ma mënul nangu mooy ñu teg ko ci ndoddu opposition bi ne hmm. ñun bëgguñu Ousmane Sonko bokk ci élection yi ndaxte bokk élection day gagné Ousmane Sonko gagné élection yi moo ñu gën a lii fi nekk te bu neexee yàlla daañu fexe ba opposition bi nekk benn deuxième tour hmm. képp koo xam ne nga bokk ci opposition bi nga dem deuxième tour ñëpp jàppale la ñu jële fi li fi nekk pour changer Sénégal dinañ xam ndax fit looloo ko tax ju am jël Cheikh Oumar Talla wax naa ko sànq Sénat dañuy prêter serment le 17 également ñuy xaar chambre administrative bu cour suprême boole ko également CEDEAO lan la nar a wax ñu annoncé également marche ci jour boobu waa LACOS également opposition bi seen wàll ñi nga xam te ñooy ay leaders affiliés à à à Ousmane Sonko yooyu yëpp soo ko boole euh, lan ngay wax cocktail bu doy waar lañ nar a assister semaine yi ñu jëm wala. waaw ah, ah, mais bu fekkee cocktail la nguuru Macky Sall moo def cocktail boobu. Hmm. yii hmm. <laughs> <laughs> wax na ko. Macky Sall bu mu fi toogee ba tey ay sélection lay def sélection dafa benn baat mooy mooy inclusive cest à ñëpp bokk fexe ba ñëpp bokk ci ñëpp gis ci seen bopp parce que tey Malick Gakou am na ñoo xam ni Malick Gakou lañ gëm gis-gisu Malick Gakou lañ partagé vision wu Malick Gakou lañ partagé su demee deux mille dix-neuf li fi am munul bañ a am parrainage. nga dindi ko teg ko nele kon moom ak ñi ko gëm ak ay ñooñam génnee nga leen beddi nga leen on l'a fait lool loolu lañ fi def ñii mbolde judiciaire lañ leen dóor ñii mbolde parrainage lañ leen dóor parfois mu tooñ ko sax ne daje na ak Mimi Touré ñuy xëccoo kan moo war a dugg ak kan moo warut a dugg dans un pays normal waaw léegi tey Mimi Touré mu ngi ci dinaa ñëw maintenant dafa am ko may toogal mu ne ma respect institution mais institution ci boppam ndax am na cër bi hmm. est-ce que ñi nga xam ni ñoom ñoo sol mbubb institution bi ndax matal nañ cër bi d'abord balaa ngay dem ci waxu sena man j'ai toujours dit man je vais être constant Sénat bi ñu koy instituer loi bi 2005 07 Macky Sall moo nekkoon premier ministre Abdoulaye Wade moo nekkoon président donc Macky Sall amul sañ-sañ puso bi mujjee ci ay loxoom di réer Abdou Diouf su créé wuloon ay conditions alternance du fi am pourtant yoroon na appareil yëpp. mais nangu na général Cissé nekk fi Ablaye Wade loo ko mën a waxal récuser nañ Ousmane ngoom indi na un ministre chargé des élections mais Macky Sall bi mu toogee gouvernement bi mu ko tegee lu mu ko tuddee gouvernement de combat et de mission c'est simple seen combat politique la ñuy continuer mission bi ñuy def mooy Macky comme daa bëgg a jël affaire bi yàqale ko Amadou Ba ci mission boobu la ñuy dox dégluwu leen kan la indi si Kaba la indi il s'est engagé en ñëw ci Sénat bi ci lu seet d'abord Sénat bi Sénat bi c'est illégal pour commencer mais course contre la montre lay def pour def dilatoire pour wërloo opposition bi Ousmane songo bu ñu paree chambre administrative bu ñu bu ñu demee si bii dugg si bee après finalement moom mu ngi focus ci li mu bëgg candidat mu ngi dem di def ay tournée économique la ko tuddee mais mu ngi def ay tournée politique parce que ay ñooñ politique ñoo koy ñoo koy jël boo xoolee Sénat bi ci ni ñu ko tëggee douze membres la douze membres yi au tiers lañ leen war a renouveler. ñetti at yi mais Doudou Ndir bi mu fa nekk 2009 ba tey. ba tey Doudou Ndir a ngi jeexoon na. dindiwu ko boobu ba léegi lu dul bi Doudou Ndir bindee bataaxal pour inviter DGE mu joxe fiche de parrainage ñan la fa indi ci ñem fa indi kenn ki dafa am mouvement politique te ñu ne ci loi Sénat ñi ñuy tabb dañu war a am impartialité war ñu am par parparloo dañu war a am neutralité. mooy koo xamante ni dafa toog tey ndey ji Cheikh mais nee bu koy def sax da cee war a diisoo ak ñi mu ko seqal mu diisoo ko ak kuje gi diisoo ko donc Macky li mu def mooy moom moo am décret décret maa tey def na li mu bëgg a def punto final maintenant opposition bi seen force de disperser wu naturellement parce que sama boppam la gënal du bañ naa la maa Malick Gakou dina dem wuti parrainage Déthié Fall dina dem wuti parrainage keneen dina dem wuti parrainage donc de ce fait am na fu ñu toll sur le plan politique ku si nekk am nga si agenda mais maintenant ñoom su ñu amul intelligence stratégique mën a fàtte seen égo dajale seen doole daal di unir seen force pour faire face suñ ko defule le rouleau compresseur du régime est là et bu fekkee condition politique yi nga xamante ni c'est pas réuni pour ñu am une élection parce que politique affaire lu gentleman la. Ama Balde Modou Lo affaire gentleman lañ def dañ dóorante ay kurpeñ après ñoom ñaar dañoo longo ki gagné dem mu dem mais fii amul affaire de gentleman c'est-à-dire Macky il peut changer les règles du jeu quand il veut comme il veut moom moo maîtriser agenda bi beneen bi lu mu wax la lu may assumer la parce que tey politique benn la régime bi quelque que soit alpha bugguñu ñoom Ousmane Sonko bokk mais san ne fait pas seulement l'affaire du régime parce que tey on se retrouve avec deux cent soixante six yoo xam c'est pas sérieux yu mel ni sabar gu tas xam nga kii toog na tey nga wax ko mu ne la lii mooy sama programme nga laaj ko ci benn fànn mu ne la lii laa ci def boo ko ci laajaatee ci beneen fànn mu wax la ko bu toogee mu ne la am na structuration mën na la wax am na ku nekk Kolda am naa ku nekk tel am na un parcours politique ràññee nañ ko mais tey jaxase nañ carte politique ba sénégalais bi mënut a ràññee maintenant le dernier mot revient à l'électeur c'est-à-dire le citoyen sénégalais que ci li muy tànn ci fa mu dafa engagé tout une nation maintenant lii ñu def ni ay dem na Sénat wiiri na CEDEAO bu joxee dogal bu ñëwee duñ koy respecté parce que euh, ñii liñ seeqal mooy gaynde gu tëx lañ seeqal te gaynde gi tëx gi ñu séqal ragal na ginnaawam lan moo fi war a am donc dina def lépp loo xamante ni lu jaadu la ak lu dëppowul yoon xoolu ko li mu xool mooy bëgg-bëggam te bëgg-bëggam mooy Ousmane Sonko bañ a bokk ci élection yi. ngeen ni vous faites face à Amadou Ba et président Macky Sall ñenn ñi dem sax ba naan yeewu bis la c'est pour wane que ni kon yeewu taxawaay bi mu waroon am xëy na xam ay insuffisance ndax gis nañ ko ah ñëpp ko dund fii ah. tamante bi seen biir kii mooy traître kii lu traître coow li bëri waaw <laughs> loolu sax daanaka waaw échappé woo ji waaw <laughs> waaw xam nga xam nga déjà waaw xam nga déjà kii moo xam nga xam nga xam nga politique Sénégal dafa bëri eh, affaire yu ñàkk fayda souvent <laughs> parce que aussi xam nga ñàkk fayda mooy eh, bu ñuy politique en tout cas man bi may politique damay politique pour askanu Sénégal damay politique politique idée mm. projet mm. politique programme mais xam nga politique bu teesante dafa commencé juddu Sénégal ay waxante ay wax yu ñaaw mm-hmm. ay eh, croc en jambe mm. mais loolu man yëkkatewu ma moi je pense que euh, du may politique dama am benn idée du pays que je vais réaliser idée pays bu réaliser mooy Sénégal lu naataange Sénégal tawféex Sénégal lu jàmm Sénégal bu am sécurité Sénégal boo xam ne nii si xale yi dañ am yaakaar ci seen ëllëg mm. loolu laay développé tous les jours ci lan laay dox maintenant di géñanteeg yooyu yëpp amul solo xam nga nit ku nekk ci ñun dañ koy xool ci ni mu dundee man tey jii boo ne mali Gakou fii ma nekk fii ma cosaanoo boo ñëwee xam nañ kan mooy Malick Gakou